maintenant ci biir décision bi nag euh, sànq doyen Albert wax na ko euh, am na ay mbir yu ci feeñ parce que ñoo ngi wax amnistie bu ñu waxee amnistie ñun ñu fàttaliku euh, que suñuy bërëb yi xale yi di nekk mooy bërëb yi nga xam ne ñoo ëppoon ay yàqu-yàqu bi coow li amee. 2021 mmh. 2023. université tëj nañ ko. Mmh. pendant des mois. Mmh. xale yoo xam ne ay champion lañu woon en juillet am seen bac. bi ñu ñëwee octobre xamuñu fu ñu jëm. amuñu benn offre par rapport récemment la ñu ubbi une partie campus social bi su ma nga dem ci yenn école fële à Diourbel wala nga dugg fële ci Ziguinchor ay écoles yoo xam ne dañ ko saccagé yàqati ko. Mm. donc yooyu yëpp mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ni évidemment que pour ñun balaa ñuy wax amnistie dina am solo ñu jàngat jafe yooyu parce que euh, mbir mi dafay laaj ñaari perspective benn bi mooy sànq ni ñu ko waxee mooy lépp loo xam ne war nañ ko jël pour comme loi war na tegu ci bëgg-bëgg askan wi. Mm. te bu ñu dégloo askan wi nga déglu organisation yi li ñu représenté. nga xool li ñu mën a jël comme média comme pour mesure moom mooy débat yi nga def nga xool famille des victimes comme ni nga ko waxee nga xool parti opposition yi dafa mel ni dañ la déet nga xool même ci biir parti au pouvoir je crois qu'il y membre du gouvernement bu jugoon ci biir dialogue bi ni moom àndu ci gouvernement nga ñëw xool même des des alliés du président de la république ànduñu si ba président obligé ne lii suma amnistie la suma loi la dinaa ko jàlle te sumay député danañ ko voté tout ça veut bu nekkee dañu am déglu ci askan wi dafa mel ni ah lii nga xam ne moom la bëgg a jàllale suba. askan wi àndu ci. Mm-hmm. te muy député bi warul nekk député wu président wala député wu opposition. donc li nga xam ne moom mooy débat bi war a am suba dafa war a reflété ci débat bi nga xam ne moom moo am ci biir askan wi donc loolu mooy benn bi nga xam ne mooy perspective donc ne la ñu fexee ba bépp loi bu ñuy tëgg mu tegu ci li nga xam ne moom la askan wi. di mm. laaj. Euh, ba nga xam ni dana mën a faj coono askan bi loolu boobu yitte la beneen mooy en tant que éducation dafa war a am une valeur pédagogique lu tax ñu ne nañu leeral leeral ce n'est pas forcément pour sanctionner mais leeral pour jàngat ba nga xam ne li amoon dootul amati xam nga président je crois que bii coow li amoon en 2021 daf ne li amoon dootu fi amati n'est-ce pas mm, mais bi ñu ne li amoon dootu fi amati li ñu gis noonu lañ ko gunge moom moo doon euh, euh, yokk peut-être homme de loi yi mooy jëndaat encore euh, armement. Mm-hmm. mais pour ñun loolu mën na jàkkaarlook li amoon ci tey. Mm-hmm. mais bu nekkee da ko bëgg a faj ci lu duré lu durable il va falloir évidemment que nga adressé loolu ñu tuddee mooy jàngat yi ngay am ci lan moo ko waral. tout bu nekkee amoon na ay jafe-jafe fële ca ca université lan moo waral jafe-jafe yi. est-ce que étudiants yi ñoom seen bopp ñoo décidé yàq seen université. Mm-hmm. est-ce que dafa am ay waa opposition yoo xam ne doon manipuler. Mm-hmm. ou est-ce que comme ni ko ñenn ñi xale xalaatee est-ce que pouvoir bi sax gouvernement bi moo jël yëngal ay xale pour ñu yàq ko ngir tuut ngir euh, mën a euh, tuumaal waa opposition bi. donc yëpp ay questions la nga xam ni amuñu si tontu mais dana baax ñu def ci ay enquêtes indépendantes pour mën ko leeral. Mm-hmm. suñu école yi yàqu nit ñi nga xam ni dañ cee gaañu. nit ñi si ñàkk seen bakkan nit ñi si ñàkk seen matériel nit ñi nga xam ne ñàkkuñu si loolu yëpp waaye toog nañ ay fan liggéeyu ñaata yoon la ñu naan tey bu kenn liggéey parce que suba kat coow mën na am ñaata yoon la ñu gëmloo ni coow li am kat ñoom biraama ñoo koy def wala tel autre groupe moo koy def dina baax ñu leeral ko pas forcément pour sanctionner xëy na war nañoo egg ci baal parce que réew dafay soxla dal mais bu ñu ko leeralee dana mën a tax ñu jàngat. mu gën yomb a fàtte mu gën dana gën a yomb a mm. fàtte mais da ci mën a jàngat pour que suba lu mel noonu dootu la dal. parce que da xam ne lii am coow lii am lu mel lii moo ko waraloon yii façon nit ñoo ko doon def et donc yii daan na war donc pour ñun jàngat bi mm. mooy valeur pédagogique bi mm. mooy tax ci réew moo xam ne dafa war di màgg di avancé parce que réew mi du yem si ñun ñoo ko mujjee jot te ñeneen ko war a jot il faut li nga xam ne moom lañ dundoon